mais ba tey di nga ñëwee kër Balla Gaye de suba gi maa ngi fa mais ma gis nga yor ay sunguf ma gis supporters yeeg fans yi ñëpp commencé kontaan retour ba tey bi nga ñëwee kër Balla Gaye de ma gis la beneen ba tey bi nga ñëwee bu ci buntu kër bi loo yëg sant sëñ Tuubaa rek waaw ca bokk gën bokk sëriñ bi moo moo bàyyi ci moom du xaalis toujours ma di wax wala dañoo bokk sëñ Tuubaa Aziz ñëw fedd li loola dugal ma ci bi gi Aziz xam na sëriñ yu ma supérieur toujours ma di ko wax mais bu dee ba dugal ma biir këram saa bu mu ñëwee mu dugal ma këram lu ma soxla mu def ko dëgg yàlla bu ma bu soxlaa war na maa jóg maag samay mbokk mm-hmm. bu soxlaa rek damaa war a mm-hmm. combat bi toujours dama koy faral di wax du man kese man rek lañ gis mais man ak samay mbokk mm-hmm. kii sama dooma daa xaw a dee ci combat bi sonn lool ku féete Dakar boo ma jot ma seetee jotoo ma mën ngaa ndax lu ma ne manqué lu mu ne manqué damaa sant suñu tuwaay ci combat bi awar nag mënutoon a am defet tey lu tax mënutoon différence dañoo jël lépp rek farale bawal waaw te yàlla nekkul bawal kese yàllaa ngi fépp ngi fépp mm-hmm. kilifa yi newoon ci suuf nag naan ko da koy dóor mu daanu da nga koy toroxal Aziz Ndiaye ampleur bi mu def bi woon yàlla nag mooy dogale nii am na ñoom du ñu torox mu waaw te a jaaxal mooy Balla Gaye dé ñu mu ñu mu ñu dafa tim waaw dafa jaaxal ñëpp Balla day góor na <laughs> góor bu lu dumaa benn yoon du too ba ñëwee loolu yàllaa ko def mm-hmm. Balla nag jàmbaaral ndeysaan tabaar waaw jàmbaar la indi na doole indi jom indi fit mais bisub ndam bisub am bisub ñàkk loolu la yàlla doole mais mais mais mais mais tey bi nga ñëwee sa diggante fan sa Balla Gaye waaw kër ga waaw ñoo ma bégloo ñoo ma yëngal parce que bi nga ñëwee kër ga gis naa ci kaw gis naa ci kaw maire bay njëkk a jug yaay Balla Gaye njëkk a jug parce que maa ngi taxaw di la gis géejëwaay gépp gépp gépp dañuy jóg di daw di ma song di ma tatagal di jël seen alal di ma jox loolu loolu loolu sant la léegi ci biir stade bi la tur wi laa xamut xaw ma nan naar lañ koy dàkkante daa daw ñëw ne moo xam nag wooy màggale maa la ko jox ngir Cheikh Fall ren waaw di daw sornum sol jasineer man nag wi ngay màggale wax ma ñaata nga koy jënde maa koy def baloo soxla dee ma woo waaye nag ñun dañoo bokk ci famille boo xam ne dañoo baaxoo di wane naan ko defal dañu ànd ak yooyu sëriñ bi rek dañuy ay borom deret yu tànk ah noonu la ñu mel mais comme yaakaaroon nañ tey Balla Gaye dina def lii dafaati waaw surtout moom loolu dama ko bàyyi woon sama doom jiit naka jekk loolu damay bu ko Tapha daanoon foofu laay déclaré bàyyi làmb loolu laa wax journaliste yëpp it avant nag xam naa yëgagu ko. Ah, waaye wax naa ko wax naa ko ñu tey maa ngi moom fa nekk man ma ana baax. yaa mën waaw ñëpp laa ko wax ma leen tey bu ginnaaw bala laalee suuf ma bàyyi làmb déclaré gi ndax dara sax na dara yàlla bii damaa dem ba laxasaa yi ma takk jotatuma ndax àll ci ci ci tur yàlla bii. ma joxoñ Cheikh Rafal am lu ma wax dama defe ne nag Cheikh Rafal xajut ci góor moo ma songal moo ma téqal moo ma dóoral moo ma daal waaw Cheikh Ibra loolu lépp moom mais àll bi du man rek fi mu doon da ngay xool kii ni mu yaroo nii te bu laxasaay woon dugg ci géew deretam yëngu la ci noonu du luñ mooy toog ba mu yàgg may yeddaal lu ma tey mënu maa métti mënu maa dee sama bopp waaw lu ma tey ba pare di gën a bég ci retour Thierno bi na ci ñëpp bëgg te saytaane génn digganteem ak Balla Gaye waaw retouru dama cee bëgg ndax am na ndam tey am naa ndam man mais Thierno am na ndam parce que bu Balla daanu woon dañ naan lu Thierno jariñ Balla ba doon dellu si waaw parce que tey tey tey victoire Balla Gaye bi tey victoire Balla Gaye bi li ci gën a sant waaw yow ak Thierno la ci nit ñi cité ñu la cité waaw sant yàlla sant nañ bu baax sant nañ bu baax a baax looy wax looy wax Balla Balla fu mu teg tànkam bañ ko tegg rek li ma xam ci moom mooy du la war du la lu ngeen diggaale mu ne la danaa ko def dana ko def Aziz Ndiaye lu mu la ne dinaa la ko jox lundi na nga ko xaar dimanche man loolu laa xam ci ñoom ay nit ay gor ay julit ay taalibe Cheikh bu jeexee jeex na beneen leneen la ñuy dox naan mais tey pourquoi ngeen def choix fii parce que Balla Gaye ci kër gi nii pourquoi defee ne mbiru Aziz la rek Aziz waaw ngémboo gi fi mu yaakaar balaat kër gi day këram ndax li fi sañ moom ñëw ñu ubbil la kër jox la néegi fu la neex dem fu fi doon rey gileem sax kenn dana ko lu tax loolu leneen la ay gor lañ daal ñu baax lañ maa ngi ñaanal waa kër gi ñëpp nag ñëpp ñëpp surtout soxna si nga fekk fii juma waaw rakk Aziz boo ak Aziz ndey baay damaa ñëw mu ubbil ma dalal ma dugal ma néegu biiram waaw lu jafe sant boroom gërëm yi ndax bu ko neexoon koole beneen bët bu ko xajal ci loolu bu baax lay wax dëgg ayca gars yi loolu sànni di sant Baye Fall waaw waaw waaye tey dafa aar tey waaw tey mais loo yëg tey non tey ndax xamul tax lamb ji tey jii lamb Balla Gaye Tapha Tine la woon mais lamb géejawaay la Balla keroog bi ñu jëlee avance bi bu ñu demee France bu ñu ñëwaat ba tey ba fi ma waxee yow joxuma ko loxo ne ko naa def mbaa am na maa fi ma su ma ñëwee tey di jàpp ci combat bi ak grâce de Juma Ndiaye wax dëgg rek la yàlla bëgg yaa may dégg bi ñu ñëwee nag fii dañ fay fekkaat beneen taw fekk bu dalal suñu xel muy jëwriñ ji ñu toog ñun yi ñu gis ñu xoolee sarax yi ñu gis ñu génne ko dem suñu yoon man du ma la nëbbu loolu def stade sax naru ma foon a dem mais fekk mu indi ay bagage yu leer na ma leer yàlla bu bagage yi demee bala ñu taxaw jàpp ci tey ji laa ko xam mi ngi ñu toog boo ko laajee mu wax la ko ñu jàpp ci lépp loo xamante ne ne Balla dina ko mën yàlla mën na ko may ndam ñu taxaw ci ba yàlla may ko ndam dañ naan alhamdulilahi rabbi alamin di sant bu baax nag Aziz Ndiaye mboolem képp ku jàpp ci combat bi ñu ngi lay sant de mais Aziz ñi ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax ndax ko neexoon def na ay moromam am na ñu fi nekk fii tey jekku nañ ko mais xool doo leen dégg ci ndimbal ci dara fii ci géej waaye moom nag lu ñu yëngu mu yëngu ci ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di sant Juma Ndiaye Juma Ndiaye li nga daj ci combat yi maam Balla Gaye du la ko fay keneen ak keneen du la ko fay yàlla sa borom rek moo la koy fay te yàlla na la ko fay ci barke borom Touba barke maam Cheikh Ibrahima Faye waa waaw bis bi moom bisub cant rek waaw moom day dolli ngëmub jaam ca biir xol ba segam daraa nga ca waaw te tey moom dañ ne man si bunt bi laa wax ne rëbbkat day xiif ak a mar maa mu nangoo guddee maa du fetal luñ taamu bala kay ci àll bi la korité ci àll bi la tabaskee di wuti ji kattan ak doole làmb tey bii ku gis ni Balla Gaye bëree ak Tapha nga xam ne ndekete làmb liggéey rek mooy mooy fay mooy fay ci biir géew Balla Gaye bu liggéeyul woon Tapha Tine da koy weer ci géew gi wante tey fulla gi mu bëree ak fayda gi mu bëree ak jom gi mu bëree ba yàlla defal ko ndam yàlla na doon njëglaayam waaw di sant nag ba jëwri bu mag ji ñàkk ki ñaan lool bëgg Balla Gaye lool di ko ñaanal ba pare boole ko yéene te yéene mu ëpp ab jëf ak góor yàlla yi yëpp waaw di sant borom kër gi kilifa gi Baye Alé Ndiaye suñu yaay Khoudia Diop di sant Aziz Ndiaye Massata ba bàyyiwuñu kenn xalil ñëpp rawatina nag plus particulièrement Duma Njaay moom mi nga xam ne tey moo ñu dugal ci bis bi ndax moo ñu dalal moo ñu tatagal jël ay xiwalam jox ñu ba pare nañu wax leen mu ngeen bëgg waaw tey moom dañ naan làmb moom billahi dekkiwaat na géejawaay incha allah ah mais sa waay moom bu baaxee rek mu ah. ah mais mais ba kontaan naa gars yi wax dëgg yàlla témoignage ñu def ci yow. waaw waaw jërëjëf. wax la baax. waaw na ko gën a téye waaw parce que ñun duñu ay duñu ay ngaakaaw bi muy bëri fii mbapat fii ci mbapatu mbaaj bi fi may waxee heure bu jógee ñu jóg mais tey gis nañ làmb waaw am na loo xam ne boo ko waxee sax sikk mais gis nañ lu dal suñu xel ci jëmm ji yàlla na yàlla yàlla na leen yàlla gën a boole te jubali seen mbir waaw jërëjëf jërëjëf